mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak réew mi FM daleen nag jàmm ci seen émission démb ak tey ni ñu ko baax di dimanche bu jot ci waxtu bi euh, tey nag ni ngeen ko déggee dañuy euh, dellusiwaat ci démb waaye waxtaanee actualité mooy parti pastef bi euh, nguur gu senegal jël dogalu tas lu jiitu pastef nag am na parti yu fi jotoon a nekk nguur itam daal di leen tas loola danañu ci dellusiwaat xool lan moo ko waraloon jamono ba muy xew itam fu réew mi tolloon ñu am mbégte dalal ci. Euh, suñu doyan du gan ci kër gi Mamadou Sy Albert ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci Demb ak Tay bi. maa euh, am na mbégte ñu waxtaan ak yow aussi ci histoire du Sénégal ak actualité. Mm-hmm. di profiter di nuyu di nuyu waa kër gi yëpp ak euh, sa auditeurs yëpp. Mhm. merci. jërëjëf euh, doyen alors ni ma ko waxee PASTEF euh, du parti bu ñu njëkk tas ci Sénégal ndax lu ko jiitu yi atum 1960 euh, tas nañu ko BMS également deux ans après di 62 ak FNS PASTEF kon mooy ñeenteelu parti politique bu ñu tas ci Sénégal bala ñuy dem démb noo jàngatee dogalu état bu Sénégal jël dogalu tas parti PASTEF. bon bett na ma bett na ma ci euh, wax dëgg yàlla xaaruma woon euh, Sénégal dellu gannaaw bay àgg ci dissolution parti euh, lu tax mu bett ma nag mooy que def nañu alternance alternance lu mu tekki mooy que dañu waral dooleel démocratie dooleel parti politique démocratie dafa waroon gën a sax ci suñu réew hmm. nga def ñaari alternance nag ngay dellu gannaaw Euh, loolu loolu loolu quand bett na ma bett na ma lool bett na ma aussi ci ñi nga xam ne tey ji euh, Macky Sall moo yore nguur te xool jaar-jaar makisal dafa xeex pour am démocratie dafa xeex ci biir PDS dafa euh, génn ci PDS samp parti am ñu bàyyi ko mu kooku ku mel ni makisal war na xam Euh, démocratie dafa laaj respect respect euh, liberté yi respect parti politique yi parce que dañ ko respecté loolu moo tax mu xeex ba am nguur donc kooku su jëlee décision bu mel noonu dafa may euh, bett na ma lool lool lool bon léegi nag et puis jaaduwul jaaduwul lu may gis ni ndaxte gaagaa Pastef tas nañ ko mais ñu ngi leen di jàpp jàpp ki nga xam ne euh, Ousmane Sonko mooy seen njiit jàpp ay militant jàpp ay responsables euh, leneen lay nuru daal nekkatuñu ci ci ci démocratie ñu ngi jéggi démocratie parce que li may gis ni liberté ni ñu koy menacer euh, dafay mel ni nguur gi daal day def lu ko neex. Hmm. nga xam ne lii moom wóor na ko ne. tuum na Pastef tuum na eh, Ousmane Sonko eh, am amul yoon sax mooy mooy jaay doole dañuy jaay doole eh, Ousmane Sonko jaay doole Pastef loolu nag lu lu diis la ci ci ci démocratie lu diis ci ci nit ki nit ki ndaxte yóbbu yu ñuy wax ay sept cent prisonniers wala sept cent détenus. Hmm. loolu dafa rëy lu mësul am ci ci suñu démocratie Mmh. Est-ce que doyen ni ñu euh, tasee parti Pastef ak motif yi ñu joxe bi nga ko déggee ak ni ñu ci doxalee automatiquement da nga xalaat démb pour dire est-ce que même contexte yi lañu ñu tasee woon parti yeneen yi njëkk tas ci Sénégal. du même contexte donc loolu moo doy waar euh, ndaxte Ousmane Sonko nekk na candidat présidentiel am lu mu am euh, jiite na ba nekk maire Ziguinchor yi nga xam ne c'est très rare que histoire Sénégal euh, benn oppo opposant ñëw nekk maire bon ji am na tey ji présence assemblée nationale donc partie boobu dafa bokk ci suñu démocratie am na lu ñu indi. Mm-hmm. ci militantisme am na lu ñu indi aussi ci yaakaar ndaxte su nekkee maire wala moo am ay groupe parlementaire c'est que am na ñi nga xam ne gëm nañu euh, seen doxalin gëm nañu euh, lu ñu leen di wax donc parti boobu euh, nuñ koy liquider nii dafa wuute lool lool ak yeneen liquide dissolution yi hmm. yeneen dissolution yi que président de la république muy Senghor hmm. ni day jël décision pour ne la yow Cheikh Anta mi li li nga may jaay amul fen hmm. sa programme bi doyuma yow da ngay ñëw euh, pour jaxase nit ñi nit ak nit hmm. e, te demul ci ci demul ci yoon hmm. am am amul xëccoo diggante sengoor ak euh, Cheikh Anta euh, bon même bi ñuy dissoudre PA yi soo xoolee PA yi d'ailleurs mooy bi ñu njëkk a dissoudre en 1960 PA yi lan moo waral dissolution boobu donc dissolution PA yi mooy parti boobu moo xeex pour ñu am indépendance ñoom dañu xeex ñoo gën a xeex ñoom Senghor pour ñu am indépendance. mooy le parti africain voilà et parti boobu parti bu amoon doole bu amoon doole xeex pour ñu am suñu indépendance bu ñu amee indépendance ba pare ñoom ñu ne yoonu Senghor bi du seen yoon. Hmm. ñoom seen waa PA yi indépendance. Euh, économique ak autre autre souveraineté politique économique lañ doon laaj. Senghor dafa doon euh, moom projet am mooy déggoo ak France ñu mën a euh, am partenariat diggante Sénégal ak France ñoom ñu ci woon. se séparer sans se ko quoi. voilà <laughs> donc euh, foofu la ñu séparé wu yàlla may PA yi am taxawaay ci université yi université de Dakar hmm. am taxawaay ci école yi am taxawaay ci administration ba Senghor aussi di gis lool mu xam ne nekk ñii euh, fu ñu teg seen tànk su leen xeexul euh, mën na la euh, mën na ko indil ay problème mm. bon fekk aussi xam na ne moom Senghor jubóowul woon ak Mamadou Dia mm. te Mamadou Dia waa PA yi la gënoon jege mm. donc situation politique bi moo tax ñu dissoudre PA yi même bi ñu ko dissoudre bon euh, dañu leen déclarer parti interdit après ñu soog a euh, tëj nag euh, ay responsable yi bon mais booy def comparaison tey jii ak Pastef PAI clandestin la woon dafa doon nëbbatu. d'accord mais Ousmane Sonko. Ah, nëbbatu ñu ngi woon ci parti unique. voilà Euh, Ousmane Sonko nëbbatul. Mm. c'est un parti légal muy def ay activités muy respecter institution yi mu ngi xeex euh, euh, donc am du du yoon parti légal nga nga nga nga dissoudre que mais surtout nag raison yi ñu joxe. Mm. am nga Senghor ak PA yi dañu wute gis-gis. d'accord wute doxalin bon. fii ak Pastef ak nguur ji mm. nguur gi soo xoolee bu baax dañuy wax appel à l'insurrection mm-hmm. yàlla xam na ni que lu mu dund soixante trois euh, soixante ba soixante huit ba même soixante huit foofu la gënoon lu ñu lu ñu violence bu amoon euh, soixante ba soixante huit 68 su dul woon armée Sénégal. Hmm. Euh, armée française Senghor lu toog ci nguur. Hmm. mais mais dégguma ñu ñuy wax appel à l'insurrection hmm. appel à à l'insurrection dafa dafa grave trop trop trop. te li xewoon booba jamono moo gënoon a tar li xew tey. mais moo gënoon moo moo gënoon grave parce que waa ñi nga xam ne ñu ngi woon ci opposition ñooy contrôler université. ñooy contrôler école bi ñoom ñooy contrôler syndicat yi euh, ñoom amoon nañu taxawaay ci béykat yi ci ci foo demoon ci Sénégal opposition amoon na présence mënoon nañu sax su su doon insurrection la mënoon nañu def euh, révolte pour jël nguur mais mais loolu euh, dalul woon seen xel seen xel bëggul ñu woon jël violence pour jël nguur waxaatuma nag Ousmane Sonko Ousmane Sonko amul doole. gauche bi mu amoon. d'accord donc kooku soo ko waxee insurrection fekk nekkul ci ci xelam amul doole boobu. Hmm. Euh, te xamul sax lan mooy insurrection soo xoolee euh, Pastef ni mu tëdd ni xamuñu amuñu xamuñu histoire insurrection hmm. donc kook soo ko tegee loolu lu diis loolu ne xamuñu histoire insurrection lan moo koy wane mais ay xale lañu ok Ousmane Sonko yàggul ci ci politique mosul jiite benn xeex mais ànd nañu ak ay mag yi gauche de. mu ni. ma ni am na ay mag yu nekkoon ci gauche bi ñu àndal tey. waaw am na ñu nekkoon ci gauche ñu ngi ànd ak moom. Mm. mais mais ñooñu. Euh, soo gisee seen histoire yu allié euh, Pastef yi nga xam ne ñu ngi ànd ak euh, euh Ousmane Sonko fekk ñi bokk AJ ñi bokk RND. Mm. mais ñooñu gëmatuñu insurrection gëmatuñu prise du pouvoir par les armes. D'accord. dañ dañ ko ba dañ ko teg ci suuf parce que suñu jaar seen jaar-jaar euh, boo xoolee PA yi am na ci biir PA yi ñu waxoon ne ñoom d'accord wuñu pour ñu bañ a def euh, prise du pouvoir par les armes dañ doon préparer ba am seen base militaire mais PA yi dafa toog dàq ñooñu hmm. ne leen ko xeex bi du affaire guérilla affaire du affaire insurrection du affaire prise par les voies militaires hmm. mais nañu nañu jaar fu ñu war a jaar donc expérience boobu Pastef amu ko hmm. et soo xoolee aussi euh, bon parti bu bu bu bees la yàggul tellement ci ci politique même seen même seen waxin euh, nga xam ne ñii amuñu euh, langage insurrectionnel Mm-hmm. ah ce ce soo jëlee en tout cas euh, accusation bu bu bu bu dis noonu euh, da ngay da da nga koy jaay doole nga nga xëpp ko li nga xam ne lii diis na. Mm-hmm. te ci yoon soo soo tegee loolu ci ndëdd ndaddu Pastef wala ci euh, Ousmane Sonko bàyyi boo demee ci justice dinañ ko sanctionner sanction bu metti Hmm, te fekk ne accusation yi xëy na matewu ko euh, mais est-ce que amul ay similitude ci kaawu Sonko ak Majmout Diop PA yi ndax Majmout euh, Senghor mujjee na ko woon jàpp ba mu def un an de prison ay militant wu PA yi tamit jamono boobu teg nañu leen loxo. ah non am na relation bu mag a mag euh, ndaxte boo xoolee Majmout Diop bi nga bi tudd Majmout Diop moo indi fii moom sa réew. moom sa réew dafa lawoon. Hmm. Senghor fi mu demoon dinañ ko ñi nga xam ne ànduñu ak moom dañ ko wax moom sa réew. Mm-hmm. c'était un slogan fétiche. Euh, moo ëppoon doole euh, slogan euh, de Abdoulaye Wade soppi. Mm. moom sa réew demoon na ba ñi ñii dañ doon wax moom sa pharmacie. Mm-hmm. Ah, waaw waaw. <laughs> dégg nañu sax amoon na ay létt jigéenu ndar yi yu ñu daan létt tuddee ko moom sa réew. parce que nii ñi dañu gëmoon ne comme euh, PA yi lu mu doon woote loolu mooy yoon bi moom sa bopp. nga mën a am sa indépendance. Hmm. ci politique ci économie ci culture. Euh, dafa amoon influence surtout ci enseignants yi ak étudiants yi. Hmm. Euh, donc moom sa réew. mooy tey ji Ousmane Sonko lu muy wax projet. xam nga boo ko dégg ci Pastef léegi ñoom projet la ñu wax. projet bi waaw. bon euh, te projet boobu law na loolu moo am influ moo tax euh, Pastef am influence boobu. Hmm. nit ñi dañu ànd ak moom ci li muy woote. nañu nañu changé. Hmm. mais moom changement bi muy wax mooy nañu jël suñu projet. Hmm. nañu gëm suñu projet nañu jaral sax ñu sacrifié pour loolu am. C'est exactement la démarche de, de, moom sa réew. te tey jii suñuy wax euh, Sonko par exemple diggante Sénégal ak France ba ñoom waxuñu leneen lu dul Sénégal na moom boppam am partenariat bu bees ak France euh, naka noonu yeneen Union européenne donc euh, am na vraiment comparaison mm-hmm. discours PA yi à l'époque ak discours Pastef tey ji hmm. et loolu euh, en tout cas ci suñu histoire euh, soo gisee sax Mamadou Dia am doole euh, c'est parce que lu lu mu doon woote mooy autogestion hmm. ñu gérer suñu alal ñun ñun ñu gérer suñu alal ci kaw ci état bi ci communauté yi ci même développement rural bi autogestion gestion c'est c'est la même chose mm-hmm. que euh, Majmoud wala wala Ousmane Sonko donc suñu trajectoire valeur patriotique de dafa am doole ci ci sénégalais yi mais même boo gisee euh, les marabou mm-hmm. suñu amee influence c'est parce que lu ñu doon woote mooy mooy cette autonomie la moom sa bopp mm-hmm. Euh, même Senghor euh, d'accord na ci loolu parce que li mu doon euh, woote mooy ancrage dans les valeurs bon ouverture bi la nit ñi d'accordul woon ak moom donc euh, defe naa am na comparaison quand même euh, entre Majmout ak euh, Ousmane Ousmane Sonko. ak alors à part Majmout Diop keneen ki am problème boobu ak sengor mooy Cheikh ante Diop à deux reprises d'ailleurs mais par bi Senghor njëkk a tas mooy BMS bloc des masses sénégalaises en 1962 donc deux ans après euh, après PAI bu Majmout Diop ci ban contexte la jafe-jafe boobu am diggante sengor ak professeur Cheikh ante Diop. bon professeur Cheikh Anta Diop c'est très très très très particulier parce que dafa am euh, benn dimension personnelle Cheikh Anta universitaire la comme euh, comme Senghor bon xam Afrique xam euh, xam àdduna bi mais seen gis-gis dafa wuute Senghor buy wax civilisation universelle Cheikh Anta parlait de de de de des États-Unis euh, d'Afrique donc sen seen gis-gis dafa wuute ce qui fait que euh, amoon na rivalité euh, culturelle di sen diggante. kon problème doon politique rek. non xam-xam la. d'accord. ah que que Cheikh Anta mësul jéem a xeex sax Senghor en tant qu'intellectuel mais gis-gisam moo wuute ak Senghor hmm. euh, donc loolu kooku bu ñëwee euh, créer parti euh, am na influence sur le plan scientifique am na influence sur le plan politique bon et surtout démarche Cheikh Anta comme ni nga ko waxee population bi la doon waxal E, e, e, Senghor buggul woon euh, nangul euh, Cheikh Anta parce que xamoon ne quand même Cheikh Anta am na am na xam-xam euh, am na am na fit que ki nga xam ne gis-gisam aussi sori woon na ci wàllu gëstu ci Afrique bon su population su àndee ak kooku mën na jural Senghor ay ay jafe-jafe hmm. bon tax mu dissoudre parti boobu et puis Senghor gëmul woon tellement tellement opposition hmm. ah moom parti unique euh, boo xoolee euh, moom démarche am bi mu isolé ñoom Cheikh Anta ak euh, ab ñoom Ablaye lii dafa jéem a créer PS dafa jóge UPS créer PS dem wuti nag les militants de gauche wuti les socialistes mu créé benn PS qui a nga xam ne y avait euh, des socialistes mais y avait aussi beaucoup de militants de de gauche nag noonu la isolé euh, ñoom Cheikh Anta ak ñoom Abdoulaye Ly Mm. alors euh, Senghor itam teg loxo euh, Cheikh Anta Diop ni mu ko defee woon ak euh, Majmout peut-être moom séjour am ca kaso ba moo gën a gàtt mais teg nañu ko loxo tàmbali woon itam di rëbb ay gaayam dafa mel ni kon même méthode la ñu mës a utiliser. ah waaw waaw mais mais boo xoolee boo xoolee Cheikh Anta dañ ko dañ ko xeex dëgg-dëgg. Mm. Ah, gaa gaa tëj nañ ko yàggul. Euh, mais mënul woon sax jàngale. Hmm. ah waaw dañ dañ ko xeex pour mu bañ a dem université yàlla xam na ne biñ koy xeex euh, amoon na xam-xam amoon na daraja euh, ci Europe ñu bari ñu ngi doon déglu lu mu doon wax ci Afrique ci histoire Afrique. mais kooku dañ ko bañal euh, dañ ko xeex euh, ci université Cheikh Anta Cheikh Anta Diop. dafa wuti xam-xam bitim réew ñëw bëgg a jàngale fi ñu tere ko ko. voilà. loolu euh, bon xam nga Senghor était bon vénéré c' c'était le, le roi c' c'était le penseur de de la négritude euh, Senghor mënu woon nangu xam-xam. beneen xam-xam ñëw. jaar ci université surtout. d'accord kon loolu la doon ragal Cheikh Anta jël ay ay gëm-gëmam transmettre ko étudiants yi. ba benn la xam-xam bi dafa wuute lool lool ak lu ñu bind ci Afrique. Hmm. Senghor xamoon na ne que euh, Cheikh Anta lu muy jàngale ak lu muy recherché wuute na lool ak. waa France nu ñuy gisee Afrique. Hmm. ak li ci kooku suñ ko bàyyoon mën na c'est un euh, acteur subversif. Hmm. bon beneen xeex bi nag mooy politique. gis nga même RND. Mm. Euh, dañu xeex Cheikh Anta mais euh, RND Cheikh Anta bi mu ko sampe euh, doole bi mu amoon ci université ak ci école yi mais de dëgg doole la amoon. Mm. bi mu ko créé ñëpp dañu daw ci moom ñëw lakk ci moom am na sax ñi nga xam ne ñu ngi woon ci gauche bi dañu dem ci Cheikh Anta. Mm. mais musul nangu Senghor musul nangu. Euh, Cheikh Anta am parti politique dëgg-dëgg donc ñaari xeex yooyu daal euh, xeex ci xam wàllu xam-xam xeex ko ci wàllu politique pour mu bañ a am parti parti politique mu mën a liggéey comme ni nga ko euh, ni mu buggoon liggéey waaw ndax bi mu tasee BMS ba Cheikh Anta taxawalaatee Front National Sénégalais amul sax récépissé en 1963 daf ko ko gàntal carrément donc nekkaat fi sax di ko jox pour tasaat après waaye mooy mooy xeexu politique bi. Mm. que que am na xam-xam am na influence soo ko bàyyee mu am parti. Mm. dafay am possibilité wax ak nit ñi. Mm. donc kooku Senghor xamoon na ne que euh, euh, suñu bàyyoon Cheikh Anta am parti mën a wax ak sénégal yi max mën a mobiliser sénégal yi ba euh, mënoon a jël nguur. dañ ko xeex dëgg-dëgg ci ci wàllum politique moom. soo gisee sax euh, histoire de Cheikh Anta euh, Abdou bi mu ñëwee dafa bàyyi politique hmm. parce que xamoon na ne que dañ ko xeex dëgg-dëgg euh, ku mu doon jaakaaroo jaakaarloo mooy sengoor sengoor dem na moom mu bàyyi politique pour wane nit ñi que moom xeexam du xeex contre une personne hmm. mais c'est xeex contre la la vision de sengoor il n'était pas d'accord hmm. gis-gis boobu Euh, loolu day wone que euh, vraiment diggante Senghor ak euh, Cheikh Anta c'est vrai que am na côté xam-xam bi mais am na quand côté politique bi Senghor xeex na Cheikh Anta Diop. Cheikh alors bi mu koy tëj kaso yan motif lañ évoqué pour mun ko arrêté moom Cheikh est-ce que mun nañ ko méngaleeg yi ñu teg tey ci ndoddu njiital parti Pastef Ousmane Sonko. non non bon c'est les libertés. ah que amoon na perception de de de de de, la révolution wala mën nañu wax ne que moom bul woon euh, parti bi nga xam ne day liggéey pour jël nguur. Hmm. ah que sur le plan la pensée unique de Senghor euh, moo taxoon bëggul woon nangu Cheikh Anta ku mel ni Cheikh Anta am parti politique mën a liggéey. mën a euh, jël nguur hmm. donc c'est euh, euh, dañ ko xeex pour pour pour limiter ses libertés donc mooy la la logique coloniale la c'est-à-dire que même le colon il n'acceptait pas que nit ñi am seen syndicat hmm. wala nit ñi am seen parti wala nit ñi am seen mouvement loolu le Sénégal continuer ba mu gisee ne à l'époque que à part Mamadou Dia, il y avait Anta. Bon, e Cheikh Anta était très influent. Mm. donc kooku bon foofu la ñu jaar pour interdire yóbbu ko kaso mais xamoon nañu dañ ko tooñ. Mm. parce que Cheikh Anta aussi c' est quelqu'un qui nga xam ne dafa doon respecter la loi et la constitution. Mm. d' <coughs> pour euh, Ousmane Ousmane Sonko dafa wuute. Mm. Euh, en ce sens que. Euh, Ousmane Sonko abus de pouvoir la ak abus de pouvoir et c'est pas par hasard que euh, ñu ngi dem ci élection il y mois. Mhm. et yàlla xam na ne que ñëpp lu ñuy lu ñuy am comme hypothèse mooy que Ousmane Sonko mën na am dara deux mille vingt quatre. Hmm. c'est c'est vraiment ça l'enjeu. Euh, nguur dafa xam ne que kii mu ngi gën a am doole. am na résultat deux mille dix am na résultat local am na résultat législative mais tendance bi mooy que Ousmane Sonko peut gagner une présidentielle ou faire gagner une présidentielle. Mmh. et, et majorité bi mënul nangu loolu. alors que boo xoolee entre Senghor euh, et Cheikh Anta wala Senghor avec la la gauche. Mm. mais il y avait un minimum de, respect. Hmm. Ah, dañ doon xuloo dañ doon euh, yóbbu kaso euh, mais du yàgg. d'accord du yàgg mais fii bon d'ailleurs euh, soo déggee gouvernement bi mu ngi wax la haine la violence. Hmm. Ousmane Sonko dit la même chose y la haine ça y pas de respect. Mm. Et, et que. Euh, nguur bi daal euh, enjeu diggante pouvoir ak euh, usman Sonko c'est vraiment la présidentielle qui a mm-hmm. tout chamboulé les relations mm-hmm. est-ce que tey buy méngalee wala bu ñu xoolee dayob Ousmane Sonko ci wàll politique fi mu toll nii ak influence bi mu am Majmout Diop ak Cheikh Anta Diop temps ba ñuy tas seen partie ba di leen arrêté est-ce que amoon nañ ko ci ci ci ci ci askan wi bu ñu méngalee ñaar yooyu lan ngay gis non non disons am na am na fu ñu converger euh, c'est-à-dire muy Majmout muy Chanta muy Ousmane Sonko. Hmm. dañu euh, am jot nañu am des partis politiques influents. bon loolu moom euh, ñoom ñett ñëpp seen parti taxaw na commencé na am ay influence bien que Cheikh Anta musul bokk ci élection locale wala législative bon mais quand même ku nekk ci ñoom am na influence am na parti politique. mais fi ñu wutee c'est euh, avec Ousmane Sonko c'est c'est pas seulement peut-être Ousmane Sonko mais le Pastef mm. dafa am chance xale yi ànd ak Ousmane Sonko mm. c'est c'est pas des militants c'est c'est des sympathisants c'est un le mouvement social la bien sûr le, le force Ousmane Sonko c'est un mouvement social moo koy accompagner mm. c'est pas des militants ils sont pas organisés mais dañu ànd ci ci li muy discours bi mm-hmm. c'est comme euh, soo euh, su ma bëggoon comparer mooy soppi ok waaw soppi influence Abdoulaye Wade mm-hmm. mais c'était pas des militants du PDS mm-hmm. euh, c'était pas des responsables du PDS mais mouvement social soppi c'était populaire Euh, def naa loolu mooy différence euh, Majmoud Cheikh Anta ak euh, ak Ousmane Sonko parce que Cheikh Anta bu amoon mouvement de soutien des jeunes comme Ousmane Sonko li mu am wala Majmoud mais c'est sûr que du du demee hmm. et même euh, je pense que pour en tout cas l'histoire c'est que les jeunes ne sont plus dans les partis politiques alors que à l'époque de Majmoud à l'époque de de Cheikh Anta. Mm-hmm. booy def politique tu vas tout de suite dans le parti. Mm-hmm. alors que xale yi tey ils vont jamais dans les partis mais suñu gisee benn leader comme Ousmane Sonko doy leen. Mm-hmm. su wootee meeting dinañu ñëw su wootee manifestation dinañu ñëw ils soutiennent. c'est un mouvement xaalis ñu jox ko. voilà bu laajee mais ça ça par exemple voilà ça par exemple. Mm. c'est c'est très nouveau au mm. Sénégal. que kenn kenn mësul am loolu. Hmm. même Ablaye Wade yàlla xam ni ne Ablaye Wade lu mu xam. Hmm. ci mobilisation des finances bon euh, Ousmane Sonko amul xam-xam boobu. Hmm. mais te jii bu soxlee dix millions vingt millions cent millions deux cent millions dañ koy mobiliser cotiser ko fii ci dëkk bi activité. donc ça veut dire que c'est un mouvement social. qu'il même qu'il ne maîtrise pas. Euh, et je pense que ça, c'est vraiment la euh, mooy particularité Ousmane Sonko mooy euh, cette adhésion-là cette confiance defe naa daal moom rek pour le moment pour le moment je crois que moom rek moo ko am ci suñu suñu taarix politique. Hmm. alors euh, tey euh, noo gisee ëllëgu Ousmane Sonko doyen Mamadou Sy Albert bu ñu ko méngalee aussi ak ëllëgu ña nga xam ne tasoon nañ seen parti ba teg leen loxo ku mel ni Majmout Diop job Anta Diop wax nga ko léegi dafa mujjee sax bàyyi politique noo gisee ëllëgu Ousmane Sonko. bon euh, en tout cas pour le moment pour le moment li mu gis mooy que il est en en prison. et loolu euh, bon c'est vrai baaxul ci moom parce que il n'a pas la liberté mais sur le plan psychologique mën na ci am chance mën na ci am ndam hmm. dina ko dina ko gën a dina ko gën euh, euh, prison ça aguerrit l'homme politique hmm. que ce soit Majmoud que ce soit ñoom Wade ou Cheikh prison dafa bokkoon ci seen xeex hmm. et loolu aussi suñu histoire suñu histoire euh, les hommes religieux hmm. euh, jàng nañ ci lu bari hmm. que prison euh, ndogal yàlla la que daf la mën na la defar même les prophètes même les prophètes ouais. euh, donc Ousmane Sonko le côté positif mooy que dina gën a dal dina gën a réfléchir dina gën a xam euh, aussi li ko dal mm-hmm. euh, donc c'est un grand moment de réflexion pour war na nekk au moins un grand moment en tout cas de de réflexion pour moom mm-hmm. bon maintenant cet avenir là c'est ça qu'il la war a préparer mm-hmm. comment sortir de la prison et, je pense que pour loolu euh, son parti euh, bi mu amoon c'est dissolu donc amatuñu existence légale mais il, il doit faire comme tous les autres Cheikh Anta Majmoud euh, mësuñu accepter la la dissolution ou l'interdiction dañu dugg ci clandestinité mm. bon donc le PASTEF aussi war na jël ses responsabilités euh, soit ñu dugg dans la clandestinité ou soit ñu jéem a xool euh, pour créer beneen partie bu bees Euh, ou bien ñu jël beneen étiquette partie politique loolu aussi lu mën a am euh, sur le plan le plan politique mais li ma gën a gis mooy que le PASTEF mënul dee nii euh, ils sont obligés d'aller dans la clandestinité dinañu nëbbatu hmm. jéem a ñu bañ leen xamal dara ñu bañ leen infiltrer loolu nag dafa diis dafa dafa laaj ñu di jàpp déjà ñu bari si ñoom ñu ngi ci ñu ngi ci loxo yoon fi mu ne Voilà, et, mais maintenant, euh, tu, <laughs> hmm. gis nga euh, Majmout. Hmm. Euh, bu ñu leen euh, dissoudre. Hmm. ñi ñu dàq leen. dafa réorganiser. parti am loolu. loolu sa a joué énormément bi ñu duggee ci clandestinité la ñu gën mën a préparé wo hmm, ñu ne pendant seize ans d'ailleurs fukki at ak juróom-benn ñu làqatu di liggéey. voilà mm. et, et Ousmane Sonko c'est ça qui risque de se passer ça, ça les militants qui ne seront pas en prison. Mm. ils vont être redoutables parce que duñ duñ leen xamal dara. bon beneen aspect bi aussi. est-ce que loolu mooy profil bu noonu la ñu war a def actuellement boobu stratégie la ñu war a adopté def profil bas. Euh, retraite carrément. Ben, ils sont obligés, je crois. À partir du moment où yoon dal na sa kaw. il faut même pas chercher à comprendre euh, mën nga def les procédures juridiques. Hmm. mais politiquement tu vas pas euh, faut pas rester dans la logique euh, du droit il faut revenir dans la logique politique donc euh, de, tu, mènes une lutte clandestine hmm. tu te réorganises Et maintenant, beneen risque bi, c'est que les gens, le pouvoir ne fait pas attention. C'est-à-dire quand tu mets trop de militants hmm. en prison, ils vont se réorganiser en prison. Oui. C'est ce qui est arrivé avec Majmoud euh, bi ñu dissoudre PAI ñu ñu yóbbu woon même d'ailleurs soo jëlee l'exemple de de Agi hmm. euh, ñoom Landing bi ñu leen yóbbee prison jugé ils ont réussi à se réorganiser Et là, le, le, avec tous ces militants, des centaines en prison, mm. bon, ils vont se réorganiser en prison. Mm. Et lolo, c'est malheureusement pour le pouvoir, ils ne comprennent pas que, bon, qui prison, c'est une option, mais dafa am des inconvénients. ça mën nga dooleel sa adversaire euh, en gënoon par exemple en politique. Mm. c'est que même ton adversaire même su dee redoutable que dafa fort bàyyi ko mu def activité légale. Hmm. di au moins li nga xam lan lay waaj. waaw mais bu boo bàyyee sa adversaire mu dem ci clandestinité da koy dooleel. Hmm. te doo ko xamalati dara. doo ko xamalati dara mais PAI kenn Senghor def na lu nekk pour pour dissoudre pour pour cibler. mais ba tey ji ñu ngi wax waxu peey uh-huh. ya ya yaa yaa des soixante ans avant oui, oui. donc le Pastef kenn mënu ko rey peut-être que dans cinquante ans les, les les générations futures vont parler encore du Pastef mm -hmm. et ça le il doit quand même war na bàyyi xel uh-huh. euh, euh, idée kenn mënul rey idée li ñuy waxee Cheikh ni euh, jéem nañu lu nekk lu nekk muy Sénégal bi muy France mais pourtant tey jii boo gisoon euh, Afrique wala nga dem États-Unis bon Cheikh Anta il est célébré hmm. am na bés sax dañ ko déjee à Cheikh Anta donc euh, idée daal euh, xel kenn mënul rey xel mën na rey nit ñi mën nga yóbbu leen prison mais seen projet seen idée seen xam-xam seen gis-gis ça ça c'est presque impossible nga rey des idées quoi. Hmm. alors sànq bi ma lay laaj noo gisee ëllëgu Ousmane Sonko c'était euh, plus pour xam est-ce que yaakaar nga ne il a toujours les chances ou des chances d'être président de la République est-ce que ba tey Ousmane Sonko gis nga ne euh, lu mu metti metti metti ëllëg mun na jiite réew mi. Je, pense que bon en tout cas lu ñuy gis ni euh, euh, gouvernement bi ak euh, APR ak benn lu ñuy def day gën a dooleel Ousmane Sonko. que hmm. nit ñi euh, dinañu gën a ànd ak Ousmane Sonko. loolu moom c'est sur le plan social psychologique. Hmm. Euh, Ousmane Sonko moo nekk tey ak Pastef mooy actualité bi. Hmm. bon la deuxième euh, il a il aura le soutien. bi mu doon la wut il aura le soutien de beaucoup de de mais deuxièmement maintenant il faut que mu euh, en prison il faut que mu mu joxe quand même des indications. Hmm. Euh, indication bi mooy ñoom ne nañ ko luñ ko tuumal euh, te wuñu ko fen bon na na des procédures juridiques. Hmm. ah ça je pense que Pastef dina na ko def mais sur le plan pour répondre à ta question plus clairement. Hmm. c'est-à-dire que fii ak euh, élection bi il faut que Pastef changer stratégie. def lan. Euh, bon am nee nañu Ousmane moo doon Ousmane Sonko moo doon seen candidat ñoom dinañu taxaw def investiture mais actuellement euh, option boobu defe na day am dina am jafe-jafe donc vaut mieux ñu am option bu bees. Mm. pour xool est ci biir Yewwi Askan mën nañu am candidat bi nga xam ne. mën na porter le projet de PASTEF laal dafa laaj que Ousmane Sonko ak PASTEF ñu réfléchir pour gis pour xool est-ce que y a pas une alternative euh, au niveau de de Yewwi Askan nga xam ne wóolu nañu ko mën na porter le projet mën nañu am programme commun euh, pour moi il faut pas que le PASTEF rate la présidentielle loolu suñ ko amoon. Hmm. un candidat consensuel au niveau de Yewwi bon maintenant ñu dem wuti ñu dem wuti F24. Mm. f hmm. c'est une coalition il y les partis il la société mais F24 quand même am na pro, pro, euh, programme démocratique. Mm. des de réformes démocratiques. si Ousmane Sonko peut aller dans cette direction. Hmm. mu am consensus euh, au niveau de Yewwi Euh, quel que soit le chef hein, mais l'essentiel mooy ko ñu am confiance ak kooku hmm. euh, F24 mën a soutenir un candidat qui accepte de mettre en place euh, la plateforme mm. je pense que en 2024 Ousmane Sonko su joxee consigne hmm. mën na am impact hmm. ah, il peut faire gagner quelqu'un la la la présidentielle. ok loolu daf koy maintenir en quelque sorte ci seen politique bi. oui euh, que que euh, bon par exemple que mënul à mon avis ce serait une erreur que ñu ne euh, c'est Ousmane Sonko ou rien. ou rien d'accord. bon ça ils risquent de perdre parce que ils vont rater la la présidentielle dans sept mois. Hmm. mais suñu yàgg nañu wax ne amuñu beneen plan bu dul Sonko. non ça c'est bon c'est les politiques politiciennes là. Hmm. <laughs> que que booy def politique. am option A. Mhm. mais option A bi bu doxul. faut avoir B. Mhm. ah moom moom par exemple il n'aurait jamais peut-être pensé que day dem euh, prison. Ouais. bon son option A c'était que je vais me battre jusqu'au bout gagner. Mhm. mais là c'est l'option B. il est en prison il doit réfléchir à partir de l'option B. bon politique nag bon am na gaagaa sa bëgg-bëgg mais réalité bi euh, je pense que so bëggee def politique daal il faut nga nga sóoraale réalité. Hmm. Hmm. alors gisoo tamit. Euh, peut-être dans la haute autorité de PASTEF am na ay kilifa am na ay kàngam ci politique mu génnee fa benn euh, candidat boo xam ne bon peut-être ce sera pas euh, si bannière u PASTEF parce que PASTEF n'existe plus officiellement mais mu nekk par exemple une candidature individuelle qui porte le projet de PASTEF de Ousmane Sonko. oui bon moom lan la doon wax ni. Euh, que l'homme de confiance am na ci PASTEF. Hmm. Ah, parce que Pastef euh, am na tendance Ousmane Sonko mais am na RND am na yoonu askan am na mm. beaucoup de sensibilité dans Pastef mm. bon am na ñi nga xam ne euh, jege nañu lool Ousmane Sonko. Mm. ñu ngi ñu ngi ci euh, Pastef ñu ngi ci Askan. donc c'est bien possible que ñu am un candidat ki nga xam ne nangu na programme Pastef Pastef am na ci confiance Euh, parce que c'est ça la, la, la, grandeur des hommes politiques. Mmh. Si nous des coups comme ça, on, imagine que niveau de Yewe Askan, bah, euh, au, niveau de PASTEF, ils vont discuter hmm. quelle solution. Hmm. Et je pense que Tibur euh, PASTEF, il doit y avoir euh, quelqu'un qui a atteint Euh, une candidature am nañu confiance mm. et s'il se prépare euh, je pense que le le le mën nañu am dara mën nañu am dara loolu moom bon c'est comme aussi comme ni ma la ko waxee. Mm. ci biir Yewwi bon à part euh, par exemple Khalifa c'est sûr que Khalifa moom dina nekk candidat mm. taxaw mais les autres que ce soit euh, Gakou Déthié Aïda tous les autres candidats potentiels. Mm. bah, ils doivent se rendre compte que sans Ousmane Sonko, mm. ils auront des problèmes. Hmm. Donc pourquoi pas réfléchir entre ñoom pour xool naka la ñuy mobiliser seen ñoom seen potentiel euh, de parti ak potentiel Ousmane Sonko ñu am benn candidat. Hmm. bañ xaar ay deuxième tour wóorul. non c'est la condition pour aller au second tour c'est d'avoir euh, nga am candidat consensuel. Oui. bu am doole. parce que fu ñu nekk nii. Mhm. Euh, pour pour man l' enjeu. Mhm. mooy est-ce que di nga am candida bi nga xam ne mën na am confiance des électeurs de Yewwi Askan. Mhm. bu jógewul ci Pastef <coughs> voilà c' est ça l' parce que Benno am na électorat euh, Khalifa am na électorat euh, PDS naka noonu mais Yewwi am na électorat. il faut que que ñu am un leader nga xam ne mën na am confiance des électeurs de de Yewwi Askan. kon dem en rang dispersé baaxul ci Yewwi. bay c'est ça compromettrait le second tour. Hmm. Euh, je pense que fu ñu toll nii euh, je vois pas ci biir Yewwi Euh, bon on pensait à Ousmane Sonko maintenant cette carte euh, bon am euh, ça n'a pas d'enjeu puisqu'il n'est pas candidat Mais euh, objectivement, il n'y a pas euh, un leader capable de provoquer un second tour. par mm-hmm. Bon, à Sonko, vraiment, il n'y a pas, en tout cas sur les indicateurs euh, élections locales, élections législatives, c'est Ousmane Sonko qui a la campagne. Mmh. il est plus influent, il est plus côté que les autres. Donc, si nous demain à rang dispersé, il y a, peu de chances que nous ayons un, un, second tour. Sauf peut-être, euh, c'est vrai aussi, que si le candidat de Beno euh, n'est pas un candidat fédérateur consensuel, euh, bu dee Beno am na ñaar ba ñetti candidat loolu aussi mën na mën hmm. pour su dee kooku am le score bi nga xam ne Macky Sall da la amoon 2012 ak 2019 loolu aussi c'est vrai mën na mën na provoquer un second tour. Hmm. alors doyen pour ñëwaat ci suñu thème. Euh, soixante mille neuf cent soixante ba léegi euh, daal état même système la utiliser même stratégie même méthode pour tas ay parti tëj ay leader politique lan mooy problème bi ci suñu wàllu yoon ci suñu peut-être daal euh, système de gouvernance fan moo am jafe-jafe ba tax état wala nguur ñi ko ŋànk lu ñu bugg a def rek def ko muy faagaagal adversaire politique ak yu demee noonu fan la problème bi nekk. bon ci ci sama xalaat problème fi mu njëkk nekk mooy l'abus de pouvoir. Hmm. Euh, que ku depuis Senghor ba makisal président bi euh, dafay dafay jaay doole ses adversaires politiques. C'est l'abus du pouvoir. Il y a, une personnalisation du pouvoir. que ñoom président bi euh, nguur bi nguuram la ah lu lu lu ko arrangé wul du ko def su dee yow euh, euh, li ngay dox xelam dalu ci mën na la paagaagal saa yu nekk loolu lañu gis depuis soixante ba léegi du pouvoir moom Euh, sës na lool lool ci géewu politique bi bon beneen euh, cause bi aussi mooy suñu justice ni mu ni mu toogee hmm. ah justice bi euh, nekkul indépendant que que gisee muy temps Senghor temps Abdou Diouf tey jii Macky ministre de la justice lu mu décider lool la justice di def. Alors que le ministère de la Justice, quand même, c'est pas, c'est pas un ministère politique. C'est un ministère de la Justice, yi nga xam ne moom moo yore yoon moom moo war a àtte mais ministère boobu su président bi moo ko euh, lu mu sant loolu la ñu def mooy li ñuy gis ni mm-hmm. ah, amuñ amuñu sax juge de liberté. Mm-hmm. Ah, euh, am amuñ boo xoolee par exemple muy acteur politique bi muy euh, journaliste bi muy chef religieux président bi lu mu bugg su la buggee yóbbu ci yoon tëj la justice bi du ci du bañ donc suñu problème justice vraiment des destin gaaga c'est vrai que am nañu ay de de grandes personnalités ci wàllum droit wàllum justice hmm. mais politiquement justice bi euh, ba tey ji euh, président bi lu mu dogal loolu lañu ñu loolu la ñu loolu la def hmm. doole procureur bokk na ci li ko waral ndax moom daanaka euh, mooy maître pour poursuites mais doole ji mu am ci yenn euh, article yi ci code penal dafay tax peut-être juge bi sax day am fu muy toll du am pexe comme article 139 bi ñu yàgg joxoñ euh, ci ci ci Sénégal mu fësaat ci kaawu Ousmane Sonko yenn tuuma yi bu ko procureur tegee sa ndodd rek faw nga dem kaso. mais dañuy jox procureur bi pouvoir bi nga xam ne àndul ak justice. Hmm. ma mënoo wax ne que tu es ministère de la justice kii lu lu mu décider loolu la ñuy def hmm. amul ma c'est injuste que procédure de justice mooy que yow gouvernement lii nga wax euh, nga saisir ministère de la justice le procureur il ne pas dépendant du ministre de la justice hmm. loolu c'est un problème euh, sérieux ministre procureur def dina ko def hmm. amul leneen lu ko téye am na sax euh, ay motivation yu mu lay jox yow juge amoo benn sañ-sañ pour pour bañal procureur bi dara. bu mayee liberté provisoire procureur def appel ñu dellu ginnaaw. et ce procureur là c'est c'est c'est c'est antidémocratique euh, procureur de la soo soo jëlee même euh, par exemple les chefs de parti la mais mais le procureur s'il est au service du parti au pouvoir mais il va écraser l'opposition. Mm-hmm. Alors que le procureur, il devrait être équidistant. Euh, aussi bien du pouvoir que de, que de l'opposition. Lolo rek moom mën a équilibre les, le, le, le jeu entre pouvoir et opposition. Mm-hmm. boo ci boole aussi euh, amuñu juge de liberté. surtout. c'est-à-dire tey jii fu ñu toll nii da ngay def euh, sa SMS. procureur bi ne la lii ak la euh, ñu yóbbu la prison si tu prends le cas de de notre collègue euh, Pape Alé bon le juge on lui dit voilà il à l'insurrection il euh, un mandat de dépôt il est en prison mais suñu amoon un juge des libertés ki na xam ne xam na lu bon bon lan mooy liberté de la presse lan mooy liberté d'expression naka lay négocier ki nga xam ne tooñ na yoon mais on Pape Ali ne serait jamais allé en prison mm. mais le procureur s'il est là pour servir euh, le parti au pouvoir mm. loolu kenn mënu ci dara tu iras en prison c'est la même chose pour tous ces maires qu'on arrête à gauche et à droite donc pour man euh, problème justice bi am na beneen problème bi nag aussi qui me tient à cœur c'est l'administration mm. daal depuis Senghor ba tey ji administration bi administration président un service public yaakaar naa loolu c'est c'est notre faiblesse administration de de de dañu yaakaar ne service public bi service président de la république alors que warul demee noonu administration elle est c'est un service public mm. donc dafa war a servir loolu mooy administration moo téye réew. Mhm. mais administ ku am pouvoir boobu ku am puissance boobu mais waroo dépendre d'un parti politique. et je pense que loolu mooy suñu démocratie su lajjee c'est à à ce niveau là. préfet gouverneur yi. tu sais euh, par exemple les préfets les gouverneurs mm. le ministre de l'intérieur le ministre de la nu ñuy fonctionner boo xooloon euh, temps colonial mm. il y avait euh, un code pénal c'est le même code pénal qu'on applique aujourd'hui hmm. ce que le colon a laissé euh, c'est cette autorité coloniale puissante un gouverneur à l'époque coloniale lu mu bëgg a ko def hmm. le préfet la même chose, le, le sous-préfet la même chose, le ministre de l'Intérieur la même chose. C'est ce code pénal colonial là euh, boo gisee sax ba tey jii par exemple pour dem marché au palais. Mm. ba on refuse mais ça c' est coloniale. Mm. kon mën nañ caa jàppee ne ñun dañoo dellu étape époque coloniale dañoo dellu ginnaaw carrément. mais mooy le code de l' indigénat. Mm. tey boo xoolee bu baax a baax. ñu ñuy martyriser nit ñi. c'est comme ça que le colon travaillait. Ouais. ñu ñu considéré wul comme ay citoyens français. mais mais mais exactement aujourd'hui l'opposition c'est pas de, c'est des citoyens de seconde zone. Mm-hmm. indigènes yi. Les, les citoyens sont des citoyens de seconde zone ceux qui sont au sommet c'est eux ils font ce qu'ils veulent c'est exactement le système colonial noonu la doon fonctionner. Mm. Euh, pour moi ça c'est un problème euh, à l'administration il faut vraiment ni ñi taxaw euh, ci administration xool naka la ñuy fexe parce que quand même am na effet négatif <coughs> muy Macky muy Abdoulaye Wade muy les anciens présidents suñu administration dal am na leneen lu ñuy xaar ci suñu administration mm-hmm. que administration nekk au service des, des populations au service euh, des citoyens. Mmh. jërëjëf doyen Mamadou Sy Albert amoon nañu mbégte lool dalal la ci euh, émission Demb ak Tay bi doon waxtaanee parti politique yi ñu a tas ci Sénégal ak contexte yi euh, jeexale bien ak contexte actuel bi ndax parti PASTEF bi ñu tas ba pare jàpp njiitam Ousmane Sonko ak yeneen militant wam moo waral waxtaan bi ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci xibaar yi nga ñu fi jox ak leeral yi nga ñu indil yëpp. jërëjëf Fatou am naa mbégte. maa ngi kontaan di la remercier bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf doyen Mamadou Sy Albert analyste politique journaliste moom la ñu doon dalal ci démb ak tay bi euh, gërëm Diaw Diallo mi nekkoon ci jàppandal gi di leen dig daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen Fatou Thiam Ngom moo ne woon ci kàddu gi ñu yendoog am